jërë ngeen jëf mu ngi noonu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii nga xamante ne ni moom mooy seen chaîne bu mag bi nga xamante ne yéen a ko taamu safoo ko di ànd ak moom saa su ne mu di 221 people. tey nag ñu ngi ñëw ti ndaanaan boo xamante ne nii doot kenn doot ko présenté ndax euh, yàgg naa feeñ ci li nga xamante ne moom mooy écran bi yàgg nañ koo dalal ci site bi nii lu yàgg yàgg yàgg waaye nag fan yi dafa xawoon a raar waaye nag xam naa buñ paree rek dinañu wax fu mu duggoon ak lan moo waraloon. mu raar loolu li nga xamante ne moom mooy écran yi mbokk yi ñu ngi dalal ki nga xamante ni moom mooy Baye Cheikh Tidiane Diakham international la solution Baye Cheikh Tidiane ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk téléspectateur yi lay seetaan ci 221 people. aouzu billahi samil alim min cheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu bokk yàlla ñoo leen di nuyu nuyoob lislaam eh, di nuyu waaye diaspora bi waaye réew mi. kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi kilifa aada yi yëpp di leen nuyu jërë ngeen jëf 221 people. Baye Cheikh Tidiane ñëpp a ngi laaj lan moo waraloon raar gi lan moo loon nga ñu ko laa gis ci sit bi ak ci écran yi. alhamdulilah raar bi li ko waral moom mooy ne eh, ñun dañuy sant yàlla bu baax ndax waaye Saalum lañ te ku wax Saalum rek wax dëkku xam-xam ba tax na eh, liggéey bi moom moo laajoon ñu tëju. yenn yi ci ay xalwa yenn ci ay tukki yu sori yoo xam ne li ko tax a jóg rek mooy yokk xam-xam ci fànn bu ne nag moo xam xam bu ñuul la moo xam tamit xam-xamu euh, luy aju ci wàllu xaatim lasraar en général dem nañ fi ba Mali ba fu gën sori foofu ci sous région bi te lool yëpp tournée lañ def Niger Nigéria doot di wëññeeku Sénégal alhamdulillah moo tax ñoo ngi sant yàlla bu baax daal Mhm. jërëjëf international la solution léegi nag dañuy fas yéene waxtaan waxtaan boo xamante ni dinañu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy wàllum xam gannaaw ba tukki nga indaale nga ay bagages yoo xamante ni ñoom foog gars yi jëriñu ci waaye itam dinañu waxtaan ci nga xamante moom mooy wàllum actualité ñaari nat moom xam naan dañ koy kii rek fu fu fu fu affaire yi kiiwee rek ñu ànd ak moom léegi nag damay bëgg ñu njëkkee ci li nga xamante ne moom moo gën a jege gën a jàmp mu di combat Modou Lo Boy Niang lan nga gis ci combat boobu waaw combat boobu xanaa li ma ci gis moom moo ne du du yomb daal combat la boo xam ne surprise dëgg dëgg dëgg dina ci am. ci ban côté. waaw te maa ngi lay wax ne Modou Lo ci boppam na bàyyi xelam. ah buum naagu na bàyyi xel booy bi. du ko may rek mën na cee am déception ci combat bi. da ngay gis ne booy xel bu baax li ma lay wax li ma lay wax nag nii lu ma gis la. Mhm. waaw te Modou Lo maa ngi wax ne. Eh, na na bàyyi xelam am na sarax yu ñu ko gisal ci combat bi yoo xam ne su ko defee. Mhm. mën na ci am ndam waaye su ko deful nag xaw ma ci moom dara. boo Niang nag moom na def mëninam rek li nga xam ne moom lañ ko gën a xamee. Mhm. te na tey boo mu wane jeunesse ba ëpp ci combat bi wane ne moom moo ko gën a féetoo ndaw. Mhm. na bàyyi xel waaw waaye daal Modou loo na bàyyi xelam liñ ko ci gisal daal baaxul. kan nga gis ne moo gën a jege mbir yi fi mu toll nii kon. waaw moom instant yi ki ko a jekku waaw ki gën a jekku mhm. booy ñaar la maanaam Modou Lo bu fekkee ne liñ ko digal nii nii sarax yooyu mhm. def na ko mu jokkoog ñun wala ku ku ku koy jege jokkook ñun mhm. waaw mbir yi mën naa ëlbatiku ah. lamb moom day day day ëlbatiku saa su ne ñoo ngi sant yàlla bu baax nag waaw lii ñuy wax nag soxla mu gëm ñu wala mu ñàkk ñoo gëm ndax ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax li ngay wax nii da koo da koo gis daal waaw luñ gis la ñoo ngi sant yàlla bu baax waaw léegi ci gis googu sax laay ñëwee nga waxtaan ak ma tuuti ci li nga xamante ne moom mooy wàllum seet. Mhm. léegi ma bëggoon nga ñëwal ma ci wàllum seet yow di nga ciy faral di yëngu naka ngay seetee. waaw alhamdulilah seet moom ñoo ngi si sant yàlla bu baax dañ ci cadre ba nga xam ne. Mhm. amuñ ci keem ci kaw suuf. Hmm? waxuma senegal de waaye ci kaw suuf amuñ ci keem ñun maanaam loolu dañ ci wóolu suñu bopp parce que ñi ciy jëflante la tukki laa jógee yàggut wax naa la ko tourné. mais ay punkal yoo xam ne Nigéria Niger Mali fépp ñoo xam ne ay tombkat yu mag lañ ci wàllu ramli ñoo xam ne dañu tomb ci suuf boori suufu géej waaye ñu yàlla may nañu ba nga xam ne ci wàllu ramli mm-hmm. moo xam jarul tomb ci suuf nu ñu neexee rek mën nañ ko tombee te raml damay wax nañ li ci gën a siw mm-hmm. fukki bunt ak juróom benn la mais ñun dañ koy wàccee mu doon ñaari fukki bunt ak juróom benn mu wàcceel la fanweeri bunt ak ñaar mënoo seetal nit ki te gisoo léppam da nga koy wax boo bu bu ko bu bëggee mën nañ ko wax kay kañ lay génn àdduna léppam dañ ko koy wax ramli bi day génnee loolu waaw da koy génnee hmm. léegi nag su fekkee ne yow ñemee nga bëgg nga ko mën nañ laa wax lépp la ko dalee ci ba ba nga juddoo ba ba ngay génne àdduna waaw ah, te li lii say gàllankoor it daf la koy indil indil la solution bi indil la saafara hmm. moo tax ñun dañ ñu booleeg ñu bëri ci wàllu boobu ba nga xam ne am na seet dañ ci am ay fànn mën nañoo seetee ci kurus gi mën nañ koo seetee mhm. mën nañoo seet ci ndox mën nañoo seet ci suuf ramlu suuf mën nañoo seet tamit ramlil la ci kayit waaye lépp daal ramlu daal boo ma fekkoon sax man may dallu nii di nelaw nga yee ma mhm. ma wax la lu dul dañ ramlu dañ koy nëbbatoo ñun yàlla alhamdulillah daf ñu may kashfu mhm. suñ jàkkaarloog yow saa ñu tomb saa ñu def dara am na tur woo xam ne dañ ko liggéey ñett baat la dégg nga loo xam ne dafa laal wàllu mbiru dégg nga de eh, rawhaani mbiru jinne ba nga xam ne daf ñu nangul ci wàllu woo xam ne maanaam boo defee sa dog yi ba pare lawraat yi moom ngay mujjee ñett baat yooyu nga am lim boo ko jàng tarbiya nañ ñu ko bam nangul ñu soo jàkkaarloog nit ki léppam nga koy wax waaw na la waxturam ak santam rek léppam nga koy wax doo bàyyi daram dafay mel ne dafa da nga jàkkaarloog baatinam lépp maanaam comme télé ngay seetaan di ko wax lépp mm-hmm. te dara du ci deñ léegi kon seet gi kon aajuwul nit ki di déplacé wu ñëw ba jàkkaarloog yow bu fekkee nekk na foo xamante ne dafa sori sax mën nga koo seetal maanaam. waaw seet bi ñun à bi ci lañ gën a aay sax waaw ndax ñi bëri ñi ñuy jëflante suñu client bitim réew lañ ne waaw loolu moo indi maanaam client yi ñuy jëflante fu ne partout dans le monde moo waral Baye Cheikh Tidiane Diaham international la solution la solution léegi nag eh, loolu moo waral ñu bëri dégg nga da da ngay nekk fa nga ne. moo xam Amérique la moo xam fu mu mën a ne ba Chine populaire nga wax ma sa tur sa sant rek ma wax la lu du dëñ si say mbir lépp. léegi léegi Baye Cheikh Tidiane bu ñu ci jógee ci li nga xamante ne nii moom mooy wàllum seet gi dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy wàllum ubbeeku ak bayre est-ce que mm-hmm. di nga ciy faral di yëngu. waaw loolu suñu domaine la. loolu dañ ci dimbali ñu bari ñoo xam ne seen mbir demoon na ba dëgër ba xam ne amatuñ yaakaar sax sa seen bopp mm-hmm. waaye bañ leen dimbalee ci wàllu ñun seen liggéey li ci base bi mooy alxuraan te alxuraan boobu dara maa faratnaa fi kitaab min shay'in looloo waral liggéey bi alxuraan na ci jiitu waaye neen ko boole garab bu ñuul ci sunguf dégg nga garab yaa ngi bagage yaa ngi nii dégg nga daanaka jaratul ñuy wane dara parce que ñun dañ prouvé dégg nga. maanaam bagage bagage saalum saalum yi faw mu dugg daal faw mu dugg. léegi nag loolu dañ koy mixé boole ko alxuraan bi ak sunguf bi am na cangat guñ ci def. suñ ko ci defee maanaam boo boo buñ la ko defalee ba mu fuur yow santal yàlla loolu moom dafa laal mbiru pëli dégg nga juróom-ñaari fan nga koy sangoo rek am ñun am na yu muy àndaat yoo xam ne dañ la koy wax moo xam na ne bitim réew wala ci réew mi eh, ak xaalis boole ko ci bu dee wàllu ubbeeku la rek ak bayre am tur woo xam ne dañ lay tudd fu ne dégg nga te du doon bayre boo xam ne nii rek dañ lay tudd nii rek mais day ànd ak njëriñ wërsëg da am ubbeeku waaw da ngay bëgg di dagg bu mu gàccee bu baax a baax macha allah maanaam si jëflanteeg ñun daal sa mbir dina soppeeku bu fekkoon ne da nga nekk nekkoon koo xam ne sa wërsëg dafa xat dina ubbeeku ubbeeku koo xam ne képp ku la xamoon démb bu la xamee tey dina xam ne sa mbir soppeeku na wallaahi léegi bu jógee ci wàllu ubbeeku yeeg bayre wàllum defe naa ku wax ubbeeku wax bayre mhm. bu àndut ak kaaraange mën na laa dikkal wallaahi léegi wàllum kaaraange googu loolu naka lay dem waaw effectivement yooyu ñooy ànd surtout ndaw maa ngi lancé ti ndaw yi ne ne ne ndaw lu ci am bayre am tur te utoo kaaraange amaano doo fi yàgg da gàtt fan te instant yii nii lii xew nii dafa bëri ndaw yuy dee surtout élection yi ñuy jub si waaw surtout loolu lu jar a bàyyi ndaw lu ci amul kaaraange dëgg-dëgg ñun bi ñuy liggéey ñun kaaraange gu wër ndax ñun séeréer lañ suñ cosaan sum loog la sum dëkk séeréer yu ñàng xam nga foofu lañ cosaanoo moo tax wàllu euh, kaaraange doo séeréer doomam lu muy njëkk a def ci moom mooy fexe ba mu të belende kenn du man ceew dara ñun loolu la ñuy liggéey loolu nag ku si jëflanteeg ñun incha allah santal yàlla bu la neexee tëddal di nelaw kenn ak lenn du man ceew dara du ayu làmmañ du pexem noonu maanaam kaaraange gi daal moom maanaam bu ngeen ko xasee ba liggéey moom képp ku jéem ci yow dara rek eh, ci moom lay dellu waaye bu saf sàpp laa la wax ne moom la ñuy liggéey belende të kenn du man ceew dara wallaahi ah léegi wàllum noob gi noob gi moom fi mu toll nii lëmbe na jamono de fi mu toll nii rawatina boo duggee ci tiktok bi mënoo défilé ñaari page yoo xamante ne doo gis ku la naan damay noob nii laay noobee ci ñaari fan benn fan ñetti fan lan nga ñu mën a wax ci wàllum noob. Ah, noob nag man waxuma client yi de client yi moom nañ ma xaar foofu waaye dama ci lancer défi sëriñ si. sëriñ si ci boppam ñu bëri ci sëriñ si buñ noobalee nit ñi duñ gis xam nga lu ko waral. Mm-hmm. mooy xam-xamu nopp ci boppam dafa am fànn maanaam dafa am yoon dañ koy jàng mm-hmm. xam xam-xamam ci wàllu xaatim mm-hmm. xam nooy duggee duggalee xaatim bi soxla bi noo koy duggalee nooy noobee boolente ba nga xam ne li nga bëgg dafay nekk ci mm-hmm. loo xam ne ñett fan du ko weesu li nga li nga ci bëgg mu am ñun boobu la ñuy liggéey léegi nag boo gisee sëriñ si ñu bëri maanaam buñ noobalee nit duñ gis du ñàkk lijaaba am nañ ci ñoo xam ne yàlla xëy na may na leen lijaab waaye ñàkk xam fi ñu koy jaar la ñu seen noob bu mayee alxuraan bi maanaam xaatim biñ la wax ni dañ ci liggéey loo xam ne wàllu garab bu ñuul la comme wàllu jat ak fas boobu moo gën a gaaw efficace dégg nga boobu suñ ko defee juróom fas-fas lay doon poqe yi xam nga poqe moom la ñuy jël dégg nga tudd tur yi ki nga bëgg a nopp moo xam tubaab la moo xam naar la moo xam ku gën a naqaree jot ku gën gën a naqaree jàpp ci nopp soo ñu ko joxee ñu fas juróom-ñaari fas yooyu ci poqe bi suñ ko ci defee nga sëf ko ci lu diis li nga bëgg ci moom di ko am. kon kon kon yéen da ngeen di nopp tubaab yi. waaw tubaab xonq nopp te maa ngi la ciy wax ne. Mhm. ñoom ñoo gën a naqaree jàpp ndax liy jàpp tubaab boo ko teg liy jàpp nit ku ñuul waaye nag ñun yàlla may nañ ci moo tax ma ne la wàllu noob ñun domaine buñ maîtriser la mhm. ba nga xam ne képp ku ci jëflanteeg ñun dégg nga de bu bi gën a jafee mhm. nit ku gën a dëgër bopp gën a naqaree jafe mhm. jafee jàpp suñ jëflanteeg moom ci wàllu wu dégg nga ci diir bu néew lañ lay assuré ne dinañ la ko jàppal li nga bëgg ci moom dina ko am ndax ku mën a nopp kan mooy kan moo tax wax naa la ne sëriñ su bëri échec nañ ci échoué nañ ci mooy ne foofu maîtriser ilmu nujum muy ilmu falak xam-xamu biddiw su fekkee ne maîtriser wu ko dégg nga loolu boo noobalee nit du gis dara. du gis dara mhm. tax foo nga maîtriser wàllu ilmu nujum mhm. xam-xamu biddiw soo mën a xam biddiw nit ki ban heure nga ko war a mën a jàpp ak waxtu woo xam ne soo ko ci noobee moom mënta rëcc lu mu dëgër dëgër bopp da nga am. koy am. waaw loolu ñun yàlla dimbale nañu ci ñoo ngi sant yàlla bu baax. Mhm. léegi yaa ngi wax ci wàllum tubaab yi ba nga naan sax ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoo gën a naqaree nopp léegi fa laay desandi parce que tubaab yooyu noonu nga wax am na ñoo xamante ne ñu ngi ci seen biir nekk ay sénégalais nekk foofu noonu di daan seen doole waaye boobu ba léegi mënuñoo fexe ba ñibbisi li ko waral mooy ñàkkum këyit. Mhm. am na ñoo xamante ne naka noonu nag ñu ngi ci biir réew mi bëgg tukki fi mu toll nii fu ne ñu fay aw affaire yi tagga témbe mhm. léegi wàllum tukki gi ak wàllum këyit yooyu noonu ñi nga xam ne soxla nañ këyit pour ñibbisi est-ce que tey ji am nga solution pour ñoom gannaaw ba l'international ak laa jàkkaar lool tey. waaw xam nga yow bul ma bul waxatee man sax di ma wax naan ndax am nga ci solution. ah mais mais déedéet déedéet loolu mooy l'international même bu dul man fi ma la ko parce que xam nga tur yi newut man maa ko tuddee sama bopp. Uh-huh. dañ ma ko tuddee. Mm-hmm. comme dañ ma ko tuddee nag. dafa preuve preuve maanaam dama def preuve. preuve bi ma def moo waral. arab dafay wax ne alxallu mooy la solution. nit ñi ñoo ma ko tuddee. ngir résultat yi may joxe ci wàllu tu kayit googu nga wax am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañ ñaan lu fu ne liñ bëgg ci mbir kayit ak mbiru tukki sottiwut ñun réew mi gën a naqaree am visa ñun soo si jëflante ñun muy États-Unis Amérique ak Japon dañ lay assuré visa bi moo ba xam ba nationalité sax ko bëggee ñun dañ la koy assuré hmm? ndax ñun yàlla dafa def nitu kurus lañ tëju yi bëri yi ak raar ci internet bi yëpp li ko waraloon loolu la ñu te kurus la ñoo ngi seen ruq ci Saalum toog fa nit ñi dañuy fekk si am na ñoo xam ne dinañ def ci kër ga lu toll ay semaine wala weer doo gis dégg nga yàlla dafa def daara ju mag moo nekk ci kër ga yor sëñ ay sëriñ daara ñuy jàngale foofu mm-hmm. waaye waaye pour gis ma ci waxtu woowu du yomb ndax ñoo ngi ci xalwa yi dégg nga moo tax aajo boobu loolu ñett fan buñ ko ci téelee kurus liñ ciy liggéey buñ ko ci liggéeyee dégg nga moo xam nationalité la moo xam kayit goo bëgg gi gën a naqaree am Europe boo si jëflante ñun garantie laa lay jox su la neexee liy weexal bi soo jox ñu avance bi moitié bi li ci des soo gisut may nañ la ko wala boo bëggee sax boo gisut ñu delloo la liñ ci defoon man maa joxe garantie boobu. yaakaar naa kayit daal alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla. soo nee ci réew mi it bëgg tukki. waaw ndax tukki ñu bëri jël nañ ko. Sénégal boo demee moo gën a dox. daa xew def business bu dox la mooy passeport yi tey boo demee police yi. Mm-hmm. Eh, ak bureau des passeports. da ngay foog ne tukki rek moom moom la nit ñi da def. waaye ku ci bëgg sa tukki réussir ndax elmu nujoom fa mu bokk ci. xam waxtu wi nit ko war a jóg ak ndax kooku tukki moom moo gën ci moom wala mu toog ci réew mi loolu yëpp boo ci jëflante ñun dinañ la wax. yoon wi nga war a jaar waaye daal boo ñaanee visa réew mu gën a naqaree am visa kenn du la rejeté dañ lay may loolu maa ko garanti. jërëjëf mbokk yi seetaan kon mu ngi noonu yéen a ngi jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Baye Cheikh Tidiane Diakham l'international la solution képp ku ko soxla rek xam nga fi ngay jaar numéro bi mu ngi noonu di affiché wu ci suufu écran bi léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante moom mooy wàllum xaalis. gars yi bëgg nañ xaalis te man question bi su koy laaj damay sawar sax. secret xaalis bi nu mu demee. waaw loolu moom yaakaar naa ñu bëri dinañ ci sawar surtout suñu mbokk saareen yi ak soween yi. waaw dañ ci sawar lool waaye nag nañ xam ne solution am na ci. Uh-huh. ñun ñooy solution bi. maanaam ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax loolu dañ ci liggéey loo xam ne lu gaaw la. lu gaaw la ta lu dagan la it amul benn euh, effet secondaire maanaam loo xam ne lu dangereux la si sa diina wala si sa ngëm yàlla du yàq sa ngëm yàlla dara. li ñuy liggéey téere poos la rek téere poos bi alxuraan la turi yàlla la mhm. nga def ko sa poos sa comptoir sa portefeuille yoo doo tàggoo xaalis te du la may xaalis bu ndaw tamit mhm. da ngay bëgg di dagg bu mu gàcc liñ ci liggéey lu wër la ñun mag ñu déey maanaam mag moo ñu yar mhm. doomu mag lañ kilifa goo xam ne buñ ko tuddee réew mi fii ak bitim réew ñëpp xam nañ ko international kon jomb na ñoo fen mais téere boobu boo ko dugalee sa poos wala sa kalpe rek maanaam dangay ngay bëgg di am xaalis wala. waaw kay loolu amul demal ma ñëw am na ci leneen boo gën a yéeme boo xam ne. Mhm. suñ la ko waxee boobu dañ koy liggéey yàgg nañ ko fee wax te la répétition est toujours pédagogique. mooy am na lu luñ lay wutloo ci loo xam ne maanaam dañ lay wàccal xaalis loolu moom képp ku koy widdi jant baa ngi nii feeñ na ki sëlmaxa mënta gis jant bi wala weer wi. waaye ki nga xam ne dara jotu ko moom bu ne gis naa weer wi wala gis naa jant bi dañ nañ ko gëm defal preuve rek moo tax loolu ñun dañ ci dimbale ñu bari ñoo xam ne ministres yi dañuy yoot ak seeni oto 4x4 ñëw ñu dimbale leen si dafa am lu ñu lay wutloo mhm. produit la soo ko indee dégg nga de dañ lay wàcceel xaalis si diir bu néew sarax bi mi laaj bëriwut te xaalis bu dagan lay doon amul benn du affaire yi ñengu du loolu tur yàlla bu ñuy liggéey la rek ba mu nangul te loolu lu mën a nekk la ñu ngi ci sant yàlla bu baax nag képp koo xam ne daa am nga ci sikki sakka ñëwal hmm. fayeku wuñ la indil produit bi li ñuy liggéey suñ ko liggéey fifty fifty la nga ma am nga am nga dem te du leer na ah. nañ loolu yéeme na de déedéet lool xaqiqa la lu wër la mais loolu est-ce yi parce que ñun yàlla daf ñu dénk tur bi ñu wax kimiyaaw hmm. kimiyaaw saada tur yàlla la lu wër am na tamit yeneen tur yoo xam ne toog nañ ci ñun magga ñu yar wax naa la ko baay magga ñu yar ay tur yoo xam ne damay bañ tudd ko ndax sëriñ si bëri dañuy piraat dégg nga bi ngay daw quoi waaw mu ngoog waaye daal euh, li ma la bëgg a xamal moom mooy na loolu yàlla may nañu ci mhm. ñu si sant yàlla to jomb na ñoo wax lu amul laa ilaha illa su amutoon du ma ko wax ndaa addunaa may seetaan borom international la solution léegi nag ñu ñëw ci wàllum feebar yi mhm. lu ci mel ni hémorroïde ak ndox mu siteeg yooyu sonal na sonal na askan bi loolu feebar yooyu noonu ndax am nga ci solution. waaw loolu ñoo ngi sant yàlla. bul ma wax nee na ma bàyyi bàyyi ko wax ndax am nga ci solution. bu ma ko waxati ndax ñun lépp luñ amut solution rek. Uh-huh. soo ma ko laajee rek man dama ci màndu lu ma xamut du ci wax. waaye lépp lu ma wax rek man am na ci xam am naa ci xam-xam maa ngi ci sant yàlla bu baax. moo tax wàllu woowu muy hémorroïde gis nga hémorroïde li koy jur mooy siti siti mooy nday feebar yi siti nag ku ko mënta faj bu nee la dinaa faj hémorroïde waxu dëgg ndax hémorroïde dafa am interne am externe interne bi moo gën a garaaw bëri nañu dee ci bàmmeel ñu dee li leen rey ñu foog ko beneen feebar wala dem ci médecin mu xool def scanner def rajo gisul dara fekk kooku hémorroïde interne la am moo ko rey kon hémorroïde mën naa yóbbu nit bàmmeel waaw de da ngay dee day rey ñu bëri te duñ ko xam moo tax ñun li ñuy wax nii domaine buñ maîtriser la externe bi day génn nga mën a xam ne kii picc la bu génn loolu nga topp traitement bi di ko faj loolu yomb naa faj waaye interne bi nag mooy li nga xam ne daf lay may def euh, gonflement gonflement biir bi dégg nga di biir bi dem air dégg nga ngay ngelawal di tamit di di def constipation muy seere waaye yooyu yëpp boo si jokkook ñun ñun liñ ci liggéey camp la goo xam ne wàllu gàncax la saalum lañ dëkk garab yi foofu lañ ëppee surtout ñombaato bi Eh, damay dawal sama oto rek dem utal ko sama bopp samay garab maa koy utal sama bopp dégg nga su boobaa boo ñëwee traitement bu ñu lay jox du romb une semaine amul demal ma ñëwaat dañ koy faj nga saw ko ba mu jeex moo xam bu interne bi la bu externe bi te liñ la ciy jox lu wër la waaw. léegi bu ma jógee ci li nga xamante ne moom mooy hémorroïde ak ndoxu siti damay ñëw ci li nga xamante ne moom mooy feebaru ngóora. Mhm. ngóora moom defe naa ne fi mu toll nii bokk na ci li nga xamante ne askan bi ñu koy jàmbat. te tey jii ni bokk na ga bokk na ci garab yi nga xamante ne moom moo ëpp liñ koy jaay ci li nga xamante ne moom mooy internet bi foo tourné mhm. ñu naan la bi baax na ci ngóora bii baax na ci ngóora léegi duma la waat laaj ndax am nga ci solution dama naan la lan mooy solution bi waaw voilà yaa ngi doon di ñëw nag ndax dafa nekk loo xam ne lu sonal ñu bëri la te maa ngi bàyyi loo xel ne bul gis garab gu nekk ci wàllu ngóora rek di ko utiliser yu ci bëri dafay am effet secondaire ndax li ci ñi ci bëri bëgg a joxe résultat ci lu gaaw mooy waral ñu jël wàllu eh, yenn per yi per yi kii tubaab yi boolente ko ak seeni sunguf wala boolente ko si seeni garab pour bëgg laa wan na la dans trois jours ma jox le résultat wala boo ko defee léegi efficacement nga gis ko léegi boobu dafa am danger. kon pëndax yi maanaam day am effet secondaire yu ci bëri nag. pëndax yi kon am na yoo xam ne dañ koy jaxase. dañ koy jaxase garabu tubaab yi waaw waaw ay ay per. per yoo xam ne comme lu mel ne dragon wala yooyu yëpp xam nañ ko ndax ñun naandite lañ naandite lañ dañ dañ xam lépp <laughs> waaye nag ñun xàq la ñuy liggéey lu wër liñ ciy liggéey ñun amul effet secondaire mooy lan dama koy tudd ñëpp xam ko te yu wër la yi moo ko waxee da ngay xam ne yii yu mën a faj la petit cola mhm. dégg nga de jinjir jinjar mhm. am na yeneen yu ñu koy composé boobu soo ko soo ko jëfandikoo champion ngay doon mhm. boo nekkee sa soxna man ngaa dem a dem mu mun la dégg nga de wàcc ma sonn hmm. na maanaam guddi gi moom bu yaay doon champion daal hmm? sa soxna du la yab. waaw boo xëyee moom ndekki ndekki amul minute yu ma lay limal lu ngay am minute yu ma lay limal da dem ba sonn ci sonn waaw am na ci buñ ciy liggéey tamit beneen boo xam ne mbiru séeréer la mbaalkat yi xam nañ ko mool yi muy ndóomaar ndóomaar mooy caw di bi ma doon wane nii nga xam ne da nga koy takk sa ndigg rek bu mu ndigg lay doon du looy naan mu lay sonal dégg da takk rek ah, sobe yàqut ko jéggi armel yàqut ko soo ko amee gaynde ngay doon boobu moo gën a garaaw sax nduumaar ndax mooy rab bi nga xam ne day sëy vingt quatre heures sur maanaam moom bu commencé sëy su fekkee ne eh, géej gi moo ngi commencé di kii eh, di kii du bàyyi fekk géej gi feru léegi nag suñ la ko liggéeylee mm-hmm. da ngay doon gaynde yow doo xam sonn ci sëy dem ba jeex rek. bu fekkee ne yow borom yi ñeenti soxna nga. ñeenti ñëpp mën nga leen satisfaire. su la neexee ci benn guddi sax. waaw waaye nag mu ngi dépendre sa santé rek noo koy sàmmee. kon soo koy jëfandikoo yow sa ñeenti soxna yooyu du la jaaxal. am na ci paa yoo xam ne dañuy yoot am na ci koo xam ne ñëwal na ma demoon na moom ba maanaam ñàkk confiance ci wàllu sëy waaye ba mu jëflanteeg man dafa takk xale bu ndaw te ngént na bu yàggut alhamdulilah loolu ñoo ngi sant yàlla man du may waxantu. kooku day moom solution bi dal ko de. macha allah. waaw. Mhm. léegi li nga xamante ne moom mooy feebaru seytaane mhm. waaw xam nga mbiru seytaane dafa sonal nit ñi. Mhm. dañ toll si zaman boo xam ne seytaane yi dañ mel ne dañ leen xëptal ñu dugg jaxasoo alam bi ak nit ñi. léegi nag seytaane yooyu mooy waral ñu ci bëri xam nga waxtu yoo xam ne nit ki génn ko surtout xale wala jigéen ju ju warul. baaxul muy njolloor ak timis ñu ci bëri ngelaw seytaane foofu la leen du duggee te su lu duggee jokkoo woo ko mel ni Baye Cheikh Tidiane pour mu dind ko du yomb ndax suudu seytaane bi ciy liggéey nii suñ la ko suudoo moo xam nit koo xam ne la dafa feebar ba nit ñi dugal ko ci oto mënta dox bu ñëwee buñ ko ko suudee mu doxi soxla alhamdulilah dégg nga moo tax loolu yàlla may nañu ci moo xam mbiru seytaane bu mu mënta doon daal mhm. su kum dalagut mën nañ la cee aar comme dal ba pare boo ñëwee ñu faj la ci lu gaaw. Mhm. amu demal ma ñëw. waaw kañ mu ngi noonu yéen a ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy international la solution ñu koy wax cheex Cheikh Tidiane xam léegi nag dama bëgg damay tëj partie boobu noonu ma ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu pàcc bi ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne moom mooy actualité bokk na ci actualité li ci gën a fës fi may tàmbalee moo di mbiru Ousmane Sonko. Mhm. gis nga ko ak ci situation yi nga xamante ne ci la nekk. gis nga tamit li nga xamante ne nii moom mooy euh, ndam li mu mujjee am fële ca tribunal léegi nag lan nga ma mën a wax ci ay mbiram fi mu toll nii. xam nga yow danga tàngal sama yaram. Uh-huh. moo tax partie du mën a sedd. acca boog na tàng. xam nga Sonko dañ ko tooñ. Uh-huh. Sonko lu tax dañ ko tooñ moom mooy ne. Uh-huh. boo xoolee mbir yi fa tàmbalee. deux mille vingt et laa lay yóbbu. waaw ndax liñ ko njëkk di tuumaalee moom mooy Sonko moo taxaw moom rek ci homme politique. mu wax ne liggéey naa impôt et domaine quinze ans kenn mësta gis ku ku ma mën a indil ne fukki dërëm bi lekk naa ko fa mu lancé leen défi te samp ndëndam moom rek ko fi def ko fi def du keneen dégg nga su fekkoon ne instant yoo am nañ preuve ne kii lii sàcc na ko wala kër gii moo ko moom kër yee ñëw ko moom foofu lañ koy tëjee waaye ñu échoué ci foofu amuñ fenn fuñ ko mën a jàppee foofu Sonko réussir loolu ñu ñëwaat taqal ko ci mbir mërs muy mbir aj saar njëlbeen gi man maa ci jóob mii du ma bàyyi ma fen bokk naa sëriñ si si njëkk a wax balaa gàllankoor bii di ko dal ne Sonko bu moytuwut dana am loo xam ne gàllankoor bu koy dal mën na ko yóbbul ba mën na ko yàq mu doon candidat maanaam candidature mën na ko ko yàqal te instant yi ni dara leer leeragut ci wala dégg nga ñu dox ba gis loolu mbi mbiri Adji bi am nit ñi ne dëgg la wala du dëgg ma taxaw ne du dëgg dañ ko ko tumaal complot la comme ni ko Sonko waxee dégg nga ñu dem ba atte bi am dégg nga àdduna ak eh, eh, attekat yi jox ma jox dëgg maanaam la ma waxoon ndax li koy firndeel mooy ku la daan ñaari yoon keñ 2-0 moo la man moo la man daan la Ziguinchor ñëw daanaat la eh, kii tribunal instance Dakar bu maanaam bu ñu fekkee ne dañ bëgg a demati cour suprême encore guddal jël la rek kon maa ngi wax son excellence président de la Macky euh, président de la république Macky Sall nee na nagu dogal yàlla Sonko dafa ànd ak yàlla dafa ànd ak moom yàlla dafa ànd ak moom kon li may loo xel nguur gi muy euh, son excellence Macky Sall mooy naan na bàyyi xel ne amul nguur gu dul jeex lu nguur yàlla gi rek euh, du jeex kon su boobaa élection yii di ñëw su mooy tundikuwut moo ngi pexe waaye yàlla noppi na waaw waaye bu moytandiku dina am déception maanaam dina am lu ko naqari ci élection yi su passé. déception boobu noonu fan lay jógee kan moo ko koy teg. waaw déception boobu kan moo ko moo ko koy teg mooy ki nga xam ne moom moo war a jël mi mooy ki nga xam ne moom moo war a jël réew mi maanaam yuuxu li ma la bëgg a wax yuuxu dina jib fuñ ko fogewul. mais Ousmane ko moom gisoo ko mu bokk ci élection yi de. waaw Ousmane Sonko bokkam ci élection yi loolu incha allah maa lay dig ne. dina am beneen émission boo xam ne bu ko defaatee dinaa la ci wax loo xam ne lu kenn dut mën a dindi la. waaye waaye daal en tout cas. Sonko moom li ma la mën a xamal moom mooy ne moo ci ay calcul politique yoo xam ne. ki nga xam ne moom lañ joxoñ muy Bassirou Diomaye ne moom mooy candidat bi ñu bëri foog ne moom la. waaw du mën na koo ñàkk doon. te ke muy dafay nekk koo xam ne ñoom liñ li leen di arrangé muy nguur gi mooy ñu bàyyi Sonko mu bokk su bokkee ci la jëll bi di tene ci ñoom eh. waaye bu fekkee ne Sonko ngemm na keneen nen nañ voteel kooku ci la jël bi di gën a ñaaw te loolu mooy doon déception bu ma la doon junj léegi. léegi su ma jógee ci mbiru Ousmane Sonko damay ñëw ci Barthélemy Diaz moom tam ba mm-hmm. tey ñu wax ci li ko li ko dal ci wàllum so li dal Sonko ci wàllum jaabante ci yoon moom fi mu toll nii Euh, euh, procès moom ak Ndiaga Diouf ñu ngi ko war a yóbbuwaat Cour suprême ñu ngi ko war a lan nga moo mën a wax ci ay mbiram. waa xam nga kii Barthélemy dafa wor. kan la wor mooy sonk ah yow da njëkk da nga daa wor Sonko laa jàpp man te loolu sax mooy li am ndax lu tax moom moo ne eh, moom foo foo ko waxawaan rek daf naan sama gaayin la. xam nga sama sama doomu ndey dégg nga ni mu ko daan waxee léegi nag doomu ndey boobu dem ba nga xam ne dialogue politique bi am na ñoom ñu complété Sonko dem ànd ak euh, Macky Sall la nguur gi dégg nga pour bëgg a éliminer Sonko yàlla gëmmu nelawut war ku ko def ren ba déwén mu jigle rek dañ la kaa jiñ du yow mu nag moom moo commencé di daanu ci moom li mu doon def moo commencé pexe yooyu di daanu ci moom te maa ngi lay bàyyi loo xel ne su bàyyiwut xelam delluwaat ginnaaw dina dina ko regretter maanaam lu métti dina ko dal mën na dem ba ñàkk euh, mairie bi mën na ñàkk post poste député mi te su boobaa loolu musiba la ci moom ñaana luñ ko ko nag waaye loolu mën naa am nga bàyyi si xel bu baax ci liñ lay wax waaye waaw waaye Barthélemy daal suma lu ma koy conseil man moom mooy ne opposition da adduna mënta yàgga-yàgga ba moom ba mu dem ba mu bokk ci nguur gi opposition nag da ngay féete ragal féete baaxul ragal ñeme féete bi mooy lan na doon opposition radicale comme Sonko su ko doonee ñoom ñaar ñu bokk xeexandoor ak mboolem past ki yi patriotes yi liñ bëgg muy jëlee fi mag Sall dayam mm-hmm. jërëjëf defe naa ne kon loolu leer na mu nekkoon bunt bi ñu ubbiloon li nga xamante ni moom mooy wàllum politique gu Sénégal léegi nag bu jógee ci wàll waaw kañ jërëjëf mbokk yi kon defe naa ni li gaay li olof Njaay di wax naan li duuf ci nag bi lépp xajul ci cin li. xam naa dañ fi tënk fii rek fas yéene ko fee yemale ba beneen yoon buñ ñëwaatee bu ko defee ñu mën a yaatal ci yeneen point yi nga xamante jotuñu ci woon dugg gën cee amal waxtaan beneen bu gën a yaatu léegi nag li may def mooy bàyyi ki nga xamante ne moom mooy international la solution mu tàggatoo Baye Cheikh Tidiane Adja. waaw waaw Baye Cheikh li muy tàggatoo tey moom mooy sant yàlla rek. di gërëm sama soppe yi fu ñu mën a ne. ci diaspora bi te ndax ñu bëri bañ ma gëjee gis ñu may woo. foo nekk xam bàyyil ma message yu bëree bëri maa ngi ci profité di wax ne képp ku ma woo jotoo ndax bu yàggut maanaam bu yàggut dara rek dineen am benn tukki boo xam ne du sori ci sous région bi dineen ko def ku ma woo jotoo ma rek bàyyil ma vocal maanaam audio lum mu yàgg-yàgg dineen la tontu jëflanteeg yow ba sa euh, xol sedd ñoo ngi sant yàlla bu baax di wax ne maa ngi bàyyiloo xel adduna ñoo ngi waajal ay élection te élection dafa ay enjeu deux mille vingt quatre élection yoo xam ne de tous les enjeux nañ fexe képp ku ci amut kaaraange na góorgóorlu fexe jokkoo ñun ñi nga xam ne tamit ñoo ngi xëccoo yàlla ñun dénk nañu ci wàllu kurus wàllu samp nit fal nit ci wàllu xalwa dugal nit ki xalwa liggéey loolu leer lu wër loo xam ne tour yàlla la ñoo ngi ci sant yàlla bu baax ku ci jokkoo ñun dinañ la dimbale mm-hmm. waaw ak loo mën a xëccoo nag waaw ñoo ngi wax ne daal ñoo ngi ñaan yàlla yan yàlla def jàmm ci réew def ko ci àdduna yëpp eh, jërë ngeen jëf eh, Mouhamed yow ak eh, ah Amadou waaw yow Amadou ñoo ngi leen di jaajëfal di jaajëfal 221 wax na yan yàlla def ko mu doon tele bu mag a mag ñu koy seetaan partout dans le man jërë ngeen jëf <laughs>